départ d'un Donkin Fils Makan Mbeng mbokk yi na 2 juin ci la fas yéene taxawal lii di troisième journée CLAF troisième journée CLAF boo war a gis caatu yaraax njaaytin caatu yoof gàmmu gay duudu saane booy jaxaaw garga njaga doole mbokk yi le 2 juin bi loolu moo jara xale bi jaaxal ñëpp xale bi jommal ñëpp xale bi nga xam ne bu duggee ci làmb ñu xam ne borom doole dugg si na jàmbar dugg si na kooku mooy Jackson kan lay bëreel un lutteur fait ses doomu faas la kooku mooy Lac Rose mbokk yi le 2 juin arène nationale ñu war fa indiwaat ñeneen X9 Boylo Prince Oligans Njaxas gi Sawalo Guy gi ak tonton Ousmane de Armée Lourde mbokk yi le 2 juin troisième journée claf Tête d'affiche Jackson Rose Makan Mbeng le Don King dellu si waat na ci lamb ji mbokk yi mu nar a wone boppam jaar ci yoon wi nga xam fa la bàyyam jaaroon ba doon li nga xam ne moom la def ci lamb jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax ci kàddu gi Modou Anta sans frontière mbokk yi ñu del siwaat ginnaaw combat doomu dangu ak giri numéro 2 bi mu jeexee si jàmm mbokk yi ñuy félicité waat waa Yaram Aar ñu ngi leen di félicité waat bu baax a baax a baax di wax ne na sponsor yi ñëw ñu jàppale waat leen parce que wax dëgg yàlla depuis ñu ñëw ci làmb 2021 si diggante Ada Fass ak Coly Faye numéro 2 26 juin ah collaboré ak petit production booba ba tey macha allah ñi ngi doxal ci làmb ban fa jógee tamit ber seen yoonu bopp ñi ngi organiser ay làmb yu ama am am solo la Diop ñi ngi lay félicité grand Idi Bakary ah ak équipe bi yëpp ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax man bu ñu tëggee sama yaram day tàng parce que man yàlla dafa dogal dama leen a bëgg dañu jëflante ak man jëflante ba rafet lool neex lool macha allah donte ah ni mu demee noonu rek la war a demee ñu leen ciy jaajëfal bu baax moo tax nag. sponsor yi tey nag gis naa fi Zador ñu ñëw jàpp ci c'est normal gis naa fi Kanji production toujours la même gis naa fi Harmonia di King Boisson toujours la même hmm? ñu ngi leen di jaajëfal parce que pour l'instant ñu ngi jàppale promoteur yi nga xamante bi nii ñoo nekk ci làmb kon waa Yaram Art félicitation mbokk yi tey mbëri fi bëre yëpp te daan ñu ngi leen di féliciter ñi daanu ñëpp ñu ngi leen di encourager rawatina nag ki nga xam ne mooy réparé numéro 2 nga xam ne jotul bëre loxo bi dafa am blessure ah ñu ngi koy masawu baax di féliciter iboobu ñoojoor iboobu kër Mbay Fall ñu ngi lay bëggee taalibi Serigne Saliou bi macha allah mobilisation bi takku na ku ci mel ni euh, Ada Fass numéro 2 tamit combat yaakaar naa ne euh, décision médicale la ah ci arbitre bi dafa signalé ne dafa mat adversaire am di përk mënuñoo kii ñëpp ah ku ci mel ni réew mi ku ci mel ni loo Karim xale boobu tamit ñu ngi koy féliciter parce que. depuis mu dem école de lutte Balla Gaye ba tey tojaat na yaram bi ànd ak Lamine Gola ci liggéey bi macha allah mi ngi wanewaat boppam parce que mi ngi daan ay ndaanaan ku ci mel ne caatu Fass aussi xale la bu jar a bàyyi xel meuse mi mu daan champion la gisaguma defe tam kon caatu Fass boo mënee ñëw daan ko tey ñu ngi lay féliciter ku ci mel ni tamit yaa xam bawal borom jàmm dof du neex ay dof du neex mbongal bu ñuul bi da ngay bëre baa nga xeex baa nga génne làmb ji sama waa ji maa ngi lay féliciter ci kaw confiance mbokk yi combat bi nag. ñagas 2 moo ko bëre ci digganteem ak Jackson ah Jackson bu ma waxee ñu ne waxati naa de Jackson numéro 2 ba école de l'Ine Mansour Jackson yaa ngi caaxaan ci làmb de lan moo xew wala dañ lay man daan la xanaa waxoo ma loolu jag jag mi ma xamoon ci digganteem ak balaak naaru gétoo yankaw raskas irkil lajjoor Jackson boobu xàmmee ma ko ci combat ma xeeru ngor xamee ma ko ci combat ma Potilo xamee ma ko ci combat ma ak ñagas de lan mooy problème bi il fallait que nga yeddaat sa bopp toogaat sa rukum man nag bu may wax man li may wax dama koy engagé rek ñime ko parce que xale yi ñoo débuté ndoo ñoo bokk génération bi ngay bëree Ibamar ak Demba Diop sa combat fils de Sallo lépp fi la ma fekk. defaraatal bu baax champion nga champion defee di tu teel a bëri même booy daanu sax nga wone lu metti mais tey lii nga bëreeg ñagas numéro 2 yomb na trop ñagas numéro 2 félicitation. sa combat Hercule da ngaa ñëw ñu daan la nga dem waajiwaat ñëw wane ne da ngaa juum daan Jackson mi daanoon Hercule kon nag làmb kenn xamul lu mu doon doomu Combelane bi doomu Bawol bi félicitation mbokk yi temps bi dafa xat nuyoo ñu sax waaye directement ñu ñëw ci grand combat bay jeexa rek doo ko nuyu ñu ñuy safoo ñëpp parce que ñi ñuy safoo dafa bëri gars maa ngi gis lépp encouragement yëpp stade beeg kër gaak fépp téléphone yëpp maa ngi gis man yaakaar naa ne juum waruma parce que macha allah tellement gars yi ni ñu ma bëggee beneen affaire la moo tax dinañ góorgóorlu suñ kemtulaay kattan ba yàlla suñu borom defal ñu jàmm suñu borom rek moo mën a muccal doomu aadama doomu aadama mënta muccal boppam chaque jour ni dugg ci tooxi doona boo xamante bi nii day toog yeddaat boppam naan lan moo ma ci dugal ndax nag pexem jigéen moo raw pexem saytaane bu ma juumal ci aaya bi nag inna kayda kuna saytaana azimun jàngkat yi bu dee jum naa nañ ma ko bindal ci commentaire yi ah kon nag yaakaar naa ne dund gu sotteeku lu ne xaj na ci yàlla nañu yàlla musal ci ndog-ndog yàlla nañu yàlla musal ci rëcc-rëcc yaakaar naa ne ku ci suñu borom musal nga mucc ci mais kenn mënu cee mucc la taaka suñu borom mucc la la ci ndax laqad xalaqnaa linsaana fii ahsani taqwiimin laqad xalaqnaa linsaana fii kabadin mbokk yi combat Gris ak doomu dangu jeex na si jàmm mais ci doomu dangu laay bala maa ñëw ci ni nga bëree dama lay féliciter ah parce que xam nga lan moo tax tey mën naa ne sa morom nga doon bëreel mën naa ne passement de bac la par rapport Gris 2 ak Tourbeek benn benn défaite bi mu amoon naqaree bëreel naqare wutal adversaire mais mobilisation bi daangu andi parce que man samay wax day jalu la wàq gis gis nga mbër bu defee benn affaire nañ koy wax te bàyyi ñëw rek daan na ko moo ko man nangam nangam lamb ko def erreur daanu ko deful erreur doo daanu doomu Dangu félicitation tëngéej nga jóge Rio te côté boobu jàppale bi dafa des am na ñu leen di jàppale nag bëgguma cité tour wala mooy hors Cissé di wax nu dul noonu am na ñu leen di jàppale mais jàppale bi dafa des parce que man xam naa ne la nekk sa kër la nekk sa kër moo ëpp fuuf li ñëw ci stade bi te tey li ñëw ci stade bi bari na trop mobilisation bu takk lébu gi félicitation lébu yëpp supporters yi Dangu yëpp félicitation tey wane ngeen ne lébu gi mooy football da ngeen a yëngal stade bi supporter seen bër andi fi mobilisation bu takku kon nag ñu ngi lay jaajëfal mobilisation la promoteur yi tëggee làmb am na nu muy demee sax man ngaa amaat combat balaa Gris am combat ñu ngi leen di ñaanal yéen ñaar ñëpp ngeen am combat kon nag mobilisation bi macha allah ñu ñëw ci bëre bala maa ñëw ci Gris 2 dangu départ bi danga nga koo teg si yoon man ak ñu ngi koy wax vidéo bi nag gars yi lu métti métti xaar leen ko làmb ji pay-per-view la vidéo boobu mooy mujjee dugg mais nag bàyyi leen ci xel combat Gris 2 ak doomu dàngu man ak làmbaloog lañ fa reporté amatut xaar leen ko dina dugg minuit parce que pay moo tax mais dàngu luur boo koy bëree da nga koy déplacé ni nga abordé combat bi ci départ bi gaa baax na mais da dem ba ci biir da nga teel a ñëw ci contact bi te luur saa boo dee contact ak moom fi mu taxaw déplacé woo ko di fi bëreeg moom da ngay am jafe-jafe parce que dafa diis day diis xeex bi gaa baax na bi ngay xeex yaa ngi koy xañ bopp yootu na ni di la jàpp nga def ko jikkooy mbër yëngal côté yëpp ba mu bàyyi loolu yaa ngi woon ci combat bi ngay koor di dóor yaa ngi woon ci combat mais fi nga juumee maag làmbool ak ñu ngi koy wax nga bàyyi Gris 2 ci loxoom dugal bal la parce que yow li ngay def effet yëpp Gris amul ngemb Gris 2 bi mu amee ngemb nag da nga waroon jël sa loxo bi dóor ko ci loxo bi mu bàyyi ko nga rocceekuwaat continuer waat léewtoo parce que yaa ngi woon ci làmb ji parce que yaa ngi koy gis di ko dóor donte moom dina la door mais da nekkoon ci làmb mais boo jàppanteeg poids lourd bu la jàppee yow jàppoo sa bëre day tëju parce que moo la gën a diis bu la côté dàq ji la bu la côté dàq ji la da ngay perte équilibre loolu moo la daaneel ñu ngi lay féliciter nag gëj ngaa daanu depuis 27 décembre 2000 yàgg raam daan depuis 27 décembre 2017 wala 2018 TFP la woon Fallou Ndiaye moo ko tëggoon 2017. daangu gëj ngaa daanu de santal yàlla julli ci yonent bi neel alhamdulilahi alamin mbër yaa ngi fiy tegle defet ñu ngi fiy duma mbëri ñuy daw ñu ngi fiy dóor mbëri ñuy daanu lépp jafe-jafe yëpp mi ngi dal mbëri ci làmb ji te yow toog nga 2017 ba 2024 ngay a daanu boo dee xool ci calcul 600 la wala 700 sans te yaa ngi daan man champion yi nga daan yëpp xam naa leen ci biir làmb ñi ngi ci làmb ji di bëree di daan kon nag félicitation lan la wax ma ñëw ci Gris 2 li may njëkk mooy waa Fass nan ngeen di amee champion bu tol ni Gris numéro de muy génn ngeen koy seetaan ba mobilisation bi des andi na nag andi na mais tàgge boo gis am na jàppal ma diw andi na dafa des kon nag giri de gën a la liggéeyaat ci mobilisation parce que ndeysaan mais nag li problème bi dafa yaru yar bi dafa ëpp de trop mais nag ndongal daara la noonu la mën a mel daara daraja la bu la jàngalut dina la yar mais gars yi nan gën a jóg jàppale ko da xam ne mbër la de. depuis mu dugg ci làmb di daan ay jaagar-jaagar booy soose cartouche ay auguste ay alam daar ay Ablaye Ndiaye ah daan ay champion yu bëree bëree ci biir làmb di daan ay Abdou Diouf bari na champion yu mu daan am benn défaite contre Reug Reug victoire yaa ngi bëgg a boo dee xool am na dix victoire wala onze victoire benn defet te day bëre di daan te làmba moom du soof du bëre ba ne ko wuu kon nag mbër la boo xamante bi nan ko gën a jàppe nan ko gën a jàppalewaat li li li li ci gën a dooleeku mooy dafa am fit boo ko dee dóor day ñëw loolu bëgg naa ko ci mbër day am fit am sañ-sañ kon nag félicitation Gris 2 yaakaar naa ne say adversaire ubbeeku na yow ak Alioune Seye lamb bu neex la man ngeen a bëre yow ak Franc parce que tamit ci kaw daa manqué lourd de man ngeen a bëre yow ak Bombardier man ngeen a bëre yow Sa Thiès man ngeen a bëre parce que nag gars ñu waxtaan bu ne Modou Anta dafa soof wala nangam ci kaw dafa manqué poids lourd te ci kaw ñii may tudd kenn gënu ko cee rafet palmarès donte Franc 13 combats 13 victoire parcours zéro faute Sa Thiès boo dee xool ci ay moromam moo ci gën a néewi defet mais Sa moo giri combat la Aline moo giri combat la Franc moo giri combat la Bombardier moo giri combat la ci kaw dafa rafle ay ay ay ay ay poids lourd léegi daan na ci la bokk kon nag nañu xam ne Gris Bordeaux pour l'instant ak Gris 2 ñoo bokk ay adversaire mbokk yi lii laa leen andiloon di kontaanaat ci yéen bu baax di leen jox seen wàccuwaay di wax ne Modou Anta la rek chaque jour di nuyu waa réew mi yëpp ak waa bitim réew ku ci mel ne Abdou Tall bu xarañ loo ñu ngi koy siyaar Aliou borom Ramdan Couture suma waa ji ah Mbaye Diop ah maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax saaxo shop borom Kër Massar cité de borom garab gi ne dëgg taalube ah Maulana Sey Ibrahima Niass bi mbokkam yaayam kaaw ah, maa ngi lay siyaare bu baax a baax di nuyu tamit suñu waaja bu baax a baax a baax Cheikh Issa Ndiaye borom jaasi ji waaye ku ci mel ne tamit Sëñ Fallou Mara borom jàmm gën gëj naa koo dégg maa ngi koy siyaare Sëñ Fallou Mara xib maa ngi lay béggee bu baax baax a baax a di la jox sa wàccuwaay alaaji saa Touba mu baax mi Sëñ Samba Ndour Diagne efficace samay xarit lan maa ngi leen di béggee waaye tamit def live Hmm? Grand Laye États-Unis Baye Jili Tarkinda Ibrahima kante gars yëpp ñi ngi leen di bégee Galso 94 borom mafia bu dëgër bi ma nga fële ca Sine mbokk yaay Siteu mbokk yaay Petit Production maa ngi lay bégee bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay waaye kenn du sama nijaay Moustapha Ndiaye ma nga fële ca Touba la éleveur maa ngi lay bégee bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay mbokk yi di leen jox di daje ba dimanche incha allah ci diggante Jackson ak Lagros samedi incha allah Fouta Production mooy ñëw ci diggante Thiatou Daouda Fall ak Papa Ndoye jërë ngeen jëf. les premiers pas d'un Donkin Fils Makan Mbeng mbokk yi le 2 ci la fas yéene taxawal lii di troisième journée CLAF troisième journée CLAF boo war a gis caatu yaraax njaaytin caatu yoof gàmmu gay duudu saane booy jaxaaw garga de njaga doole mbokk yi le 2 juin bi loolu moo jara xale bi jaaxal ñëpp xale bi jommal ñëpp xale bi nga xam ne bu duggee ci làmb ñu xam ne borom doole dugg si na jàmbaar dugg si na kooku mooy Jackson kan lay lutteur qui a doomu Fass la kooku mooy Lac Rose mbokk yi le 2 juin arène nationale ñu war fa indiwaat ñeneen X9 Boylo Prince Oligans Njaxas gi Guy gi ak tonton Ousmane Der Armée mbokk yi la 2 juin troisième journée claf tête d'affiche Jackson Rose Makan Mbeng le Don King dellu si waat na ci làmb ji mbokk yi mu nar wone boppam jaar ci yoon wi nga xam fa la baayam jaaroon ba doon li nga xam ne moom la def ci làmb